ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko jéggalu di tuub di dellu ci moom di ko ñaan mu gindiñu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim moom mi nga xamee ni képp ku mu teg ci yoon woowu texe nga waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga jàdd woowulee yoon amul kenn ku la mën a jubalaat ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeelul yellul ñu koy bokkaale ak kenn di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la soppeem la tànneefam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal booba bis benn ci di taxaw mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala comme ni ñu ko dénkee ci alquran ci ay bërëb yu bari mu ne ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rek bu leen dellu si ci man mukk lu dul la ngeen nekk ay dëgg-dëgg jullit mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillah ñu ngi ko fas yéene amal ci mawdu bu ñuy wax xuququ tifl mooy droit de l'enfant ginnaaw bi nga xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi bind moom mi sàkk moom moo ñu gën a xam ni mu sàkk moo tax mu utal ko ay xuquuq yoo xamante ni ay àqam la duñ ko war a jox bu ñu waxee droit de l'enfant la ca jiitu mooy ci ni ko islam tëralee mooy xale bi da nga ko war a njëkk utal lii di ay wayjur yu baax moo xam ca wayjur bu góor bi la comme ni mu nekkee tamit ci wayjur bu jigéen bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na yellul ci ab jaam yellul ñuy may kenn ci sa njaboot koo xamante ni bokkaalekat la wala koo xamante ni ku weddi yàlla la mu ni nga may sa doom ab jaam sax koo xamante ni jaam la taba jaam di am moo gënal yàlla nga may koo xamante ni ab sang lañ koy wax waaye mu doon bokkaalekat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu wax ci xadis mu ni ida ataakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawwijuhu illa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid mu ni su leen dikkalee koo xamante ni dafa ñëw di labat seen doom waaye ngeen rafetlu jikkoom ak diineem rek nee na na ngeen ko may ca saasa nee na su ngeen deful loolu rek fitna mooy mujjee judd ci seen biir ak yàqute goo xamante ni kenn du ko mën a mesurer yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ba tey ci mu ni yii charte la ñuy utiliser kii di soxna bi ci njëkk mu ni na nga ko tànn ci ngir alal wala ngir askanam wala ngir taaram mu ni nag wala ngir diineem soo demee bay tànn nag nee na na nga tànn koo xamante ne ku am diine la soo ko deful rek mu ni dóor nga sa loxo ci ëkk wal iyaazu billah kon droit de l'enfant islam fi mu ko tàmbalee mooy nga tànnal sa doom ay waajur yoo xamante ne yu baax la naka noonu nit ci droit de l'enfant ba tey ci islam yàlla dafa santaane ci ki nga xamante ni dafa ëmb mu sàmm li mu ëmb jox ko ay àqam ba tax na jaamu yàlla bi mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax koor su fekkee soxna si wan na lor shariatul islam dalay wax ni la bàyyil koor bi ngir ñu ñu mën a jox ki nga xamante ni mooy xale bi na ci biir ak xam mooy lu mu war a dundee bala moo loru naka noonu it la islam santaane sax ci ki nga xamante ni dafa nekk ci biir néegu sëyam ëmb ñu wàcc ko ëmb na borom kër gi ñu jàppante mu fase ko nee na bu mu génn kër gi na nekk ci biir kër gi ñu yor dundam yor sécurité xale bi ci ak fajam idda bi sax ñu ngi koy jàpp ci bi nga xamante ne dem na ba soxna si yeeweeku wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadaana xamlahunna kon ba tey droit de l'enfant islam mu ngi koy sàmm ba ci xale bi boo xamante ni nekk na ci biir wayjuram ginnaaw bi nga xamante ne nag xale bi génn na gane na àdduna dafa bokk ci àq yi nga xamante ne am na mooy ñu utal ko tur bu baax tur bu sell yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tur yi gënal yàlla nag mooy tur yi nga xamante ne mooy tàmbalee ci abd lu mel ni abdullah abdurrahman abdul majid ndax borom bi subhanahu wa taala nee na moom bala mu laa yëkkatil say daraja day fekk mu nangu sag ubudiya nga doon ak jaam ci moom moo tax mu ni ginnaaw tur yooyu nga xamante ne day tàmbalee abdullah nee na tur yi gënal yàlla mooy tur yi tàmbalee nit ñi bokk ci askano ci muhammad mooy tur yi ak askanale ak sant muhammad ahmad hamid mahmoud nee na nag bul ut mukk tur woo xamante ni moom alayhi salaatu wasalaam turu ceddo la wala tur woo xamante ni turu ŋàññi la am na ku ñëwoon yonent bi salaa sallam fekk tur dam ñu ni tuddee nañ ko Asim yonent bi salaa sallam naa ne déet Asim li muy tekki mooy mooy kat mooy ti mooy tekki ku féttéerlu mu ne nañu soppi woowu tur ñu tuddee ko Jamil naka noonu tamit la ñëwoon fekk ku tuddee doomam tur woo xam ne turu ku ëppal la Barra maanaam koo xam te ne ku sell la ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu yàlla moo koy définir mu ni nañ ko tuddee rek Zeynab ba ci Ali ibn Abi Talib ba mu amee doom Ali ak ni mu tànge woon mu ñëw mu ni doom ji tuddee na ko xarb xare yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tur day wuyu borom nañ ko tuddee Alxasan kon dafa bokk ci ak kii xale bi ñu utal ko tur boo xamante ni tur bu baax la waaye nag eggul ci li islam di wax ni ki nga xamante ni dañu ko tuddee nee na kenn ku nekk sa tur moom ngay wuyoo yowmal qiyaamati ak nan nan fa nañ leen mën a tuddee abdullah wala muhammad hamid tur yu sell nga dem ba màgg di ko soppi di ko tuddee tur yoo xamante ni dafay delluwaat ci jaahiliya أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بقي جنا بن سنتات يالله subhanahu wa taala di julli di selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu ñaareel taxawaay ba tey ci àqu xale muy droit de l'enfant daf cee bokk ak tarbiyatu wa taalim mooy nga jàngal sa doom te yar ko ginnaaw bi borom bi subhanahu wa taala waxee ci alquran mu ni يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يلا سبحانه وتعالى لن يدقل نفقل سنبوب سورة waaye ñu fegal ko it suñu njaboot dafa bokk ci li ngay fegalee sa njaboot ci sawara mooy nga jàngal ko xamal ko boroomam droit bi du rek ci nga jàngal ko boroomam xamal ko boroomam waaye nga mu fexe mu nekk ku am xam-xam ndax yàlla mi ñu dénk saw suuf li mu njëkk a dénk suñu maam Adama wala li mu ko njëkk a jàngal mooy da koo jàngal moom wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla dafa njëkk a jàngal suñu maam aadama soog koo dénk kaw suuf nag loolu li muy takkale mooy kenn mënul gérer kaw suuf ci ordre lu dul dafa tegu ci kaw xam-xam kon xale bi dafa am droit ci nga jàngal ko boroomam waaye tamit nga xamal ko boroomam kii di Seydina Ali radiyallahu anhu ci aaya bi mu ni ni mu ko tafsiree mooy allimuhum wa addibuhum mooy nañu jàngal suñu njaboot gi waaye nañ leen yar yaru diin mu bokk ba tey ci àq yi nga xamante ni xale bi da koo am mooy àqu loisir xale da ko war a fo suñu Aysa mu ngi nettali mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musoon nañu fekk ko moom muy foow ak ay xale waaye nee na alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw ànd ak moom di fowandoo ak xale waaye muy foogoo xamante ne nag foogu dagan foogu baax benn waaye ñëwoon na ni moom de am na fukki doom nee na fukki doom yi nag musu ci akola kenn yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ku dul yërëmaate de kenn du la yërëm kon dafa bokk ci àq yi nga xamante ne sa doom da koo am ci yow mooy mu jege la jege goo xamante ni dafa yëg ne am na wayjur bu ko teg mu mu ku nekk ci wetam mbokk yi ànd ak àq yi nga xamante ni jot nañ koo lim ci àq ci gone damay laaj ci bépp jullit si suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk fële ne ci Gaza ñoom àq ci yii yëpp ku ñu wax tey mu bokk ci àq bi nga xamante ni privé nañ leen ko mu mel ni sax lañ leen teg ci fitna ak nattu dafa nekk lu normal ci kaw suuf te ñuy wax droit droit yamu ñuy woon ci rey gi ñu leen doon rey comme ay weñ xale yi mag ñi amul sax ni kii fii la ñuy bàyyi wala fee di rey rawatina xale ñiy wax droit de l'enfant ana fan lañ nekk ci kaw suuf wala jullitu àdduna bi ndax dañuy delluwaat ci li nga xamante ni moom la shaa'ir bi waxoon ni ittafaqa al arabu ala annahum lam yattafiqu ñaata milliards dañuy wàññi ci ay jullit ci kaw suuf ñu jël fitna gële di ko teg suñu mbokk yee di leen rey ba léegi ñu egg sax ci ni amul kenn kuy mën a indi dépp ndimbalu dund buy egg ci ñoom ñu nekk ci xiif bu rëy rëy rëy rëy rëy rëy te jamono jii ñu toll ku nekk yaa ngi wane sa cofeel ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay su ko fi fekkoon ay su fi fekkoon abu bakr siddiq ay su fi fekkoon omar ibn al-khattab ay su fi fekkoon jàmbaar yooyu nga xamante ni keroog rek bañ ne soxna soo xamante ni muurukaayam lañ dindi mu yuuxu ni waa moo tasima la yuuxu woote ko ñu tegal ko armée boo xamante ni dañoo armée wu ba ba fees dell ngir benn boobu yuuxu ci koo xam ne dañoo dindi muurukaayam bakkan mbokk yi yàlla bi muy dénkaane daf ni yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñii di ñëw di jaayante ak yow wax leen bu ñu ñëwee bu ñu bokkaale ak yàlla bu ñu bu ñu faat bakkan bu ñu faat bakkan lu dul bakkan boo xamante ni ak ku islam moo egsi ci kooku pour ñu war koo faat te malaaka yi mbokk yi bi borom bi subhanahu wa taala nammee wàccee fii doomu aadama ci kaw suuf malaaka yi dafa bokk ci li ñu waxoon borom bi subhanahu wa taala atajalu fiiha man yufsidu fiiha wa yafsidu dima ndax yow yàlla da ngay wàccee ci kaw suuf ñoo xamante ni dañuy semer désordre ci kaw suuf egg bay rey ay nit xanaa kon du wax jooju moom moo nekk ci jamono jii te ñu dee suñu mbokk yi nekk Gaza di leen rey comme ay weñ waaye kenn mbokk yi alal aqal amul kenn kuy taxaw ni ah man de mënuma ci dara ndax mënumaa jéggi frontière dafa bokk ci li ñuy wax ashaair az-zamaniya muy ay symbole yoo xamante ni jàkka jii ci la bokk ci shaairu almakaniya waaye mu am ay waxtu yoo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu yi nangu ñaan la te bis bii ñu nekk muy aljuma ci la bokk ci bu ñu demee ba julli tàkkusaan jëm timis ak gée diggante tàkkusaan ak timis muy waxtu woo xamante ni yow mi mënu la dem Gaza nga toog alal aqal tàllal tay loxo ñaan yàlla subhanahu wa taala toroxlu ci kanam moom moom subhanahu wa taala wane si suñu xol ni wallahi bu ñu ubbi woon frontière buñ ko ubbi woon fajar balaa ñoo julli tisbaar lee ñu bëgg a saafara ci Gaza dina saafarawu nga tàllal tay loxo ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal nasrun wa fathun qarib li ixwanina fi gaza wa fi falastin wa fi kulli makan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adab annar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله